muy jàmbaari sëriñ saaliw at mu yàlla sakk nii la koy defee at mu yàlla sakk nii la nuy wooye ñu ànd ak moom di lan fàttaliku jàmbaar ji nga xam ne kenn dootu ko fàtte muy sëriñ Touba Cheikh muy Ahmadou Gaye Fifty Ahmadou Gaye Diop am nga ndimbal am nga tawféex la tax ma ne am nga ndimbal am nga tawféex mooy sa way jur bu baax waa ngi nii bàyyi ko ndar ànd ak ay mbokkam yépp jóge ba ndar ngir lan ànd ak yow sa bis bii doyoon na sëkk bu la neexee tekkil say baas wax naa ko léegi ci biir ne ko ku régler perte sa ndey a lekk sa bénéfice waaye yow ku ne jàkk sa ndey ku ne la jàkk xam ne sa way jur wi lekkul sa bénéfice te te te le tax nga am li nga am taxoog doomi sëriñ saaliw mu Cheikh Mamadou Mourtada moom sëriñ Saliou góor yàlla mooy sab Serigne. nga yaakaar ko fii fii fii ci barab bii laa ko jotee téléphone mu ne ma Ahmadou moomu de sant naa ko la tax nag sa sëriñ man laa sant nga mën a taxoog doomi sëriñ Saaliw sa ndey ju baax ji rek sa ndey ju baax ji rek sa way jur wii maa ñëw ndar ànd ak sëriñ Modou Mamoun Lo gay del keroog daa wax bay jooy ne gërëm naa sama doom ji taxaw na ma taxaw na ay rakkam a ay magam waaye taxaw na ay mbokkam ndokk ndok moo waral nga mën a tàbbeeg sëriñ Saliou moo mën a nga am ku toll ne Serigne Touba Cheikh Saliou mu teg la loxo boole la ak doomu ji Cheikh Mamadou Mourtada kon bu nuy tàmbali lii dañoo bëgg a xam ne tey dañuy sant sëriñ Saliou. di nuyu du siyaare Serigne Ahmadou Gueye Fifty di jël nuyoo bi di ko teg ci loxoom. mu nuyul ñu waajuram wu tedd wi fi teew ak ñi mu àndal ñépp di nuyu mbokki taalibe yi ñu fi fekk yépp bu ñuy fàttaliku gaa ñu baax ñi yërmande sunu borom day wàcc te sëriñ Saaliwu boo ne Saalix benn la boo ne saalixiina muy pluriel di jamxu ci sëriñ Saaliw laa déggee aaya bii wala xad katab naa fi zaburi min baadi sikri anna larda yarisuha ibadiya saalihun ñun yàlla ñoo bindoon ci téere bu ñu woowee sabuur mooy téere bi ñu joxoon daawooda wa aatay naa daawooda sabuuran bind nañ ci dogal ci ni ñun yàlla ñooy donnale suuf yi ku ñu neex Serigne Saliou lim doon am am xel kom soo ko doon jox meetar yitteem jëpp la ciy def xoolal bi ñu koy jox suufu si xel kom fekk na mu yor àll bépp Abdou président de la république lim njëkk a defal saa Saliou mooy jox ko suufu xel ko te booba daal laaj gaa yi ne leen lu ngeen gis ne moom la gën a yittewoo ndax gis naa ne su ma ko joxee xaalis gis naa ne taxut mu di ko mu am ci benn ahamiye bi amu ci benn importance Abdoul si Cissokho moo ne ko baykat la soo ko joxee suuf suuf dina ko dina ko exploité man nag maa jël garantie bi. biñ koy waajal suuf si kisa bu gudd la abdu juuf ku doy waar la kiyam la wekki pour jox Serigne Saliou suufu si Xelkom ndax suuf si forêt classée la waaye nag booy dee jëfal sëriñ tubaa Serigne tubaa daa am ñaan wala taxoonu su la waxta tala bi sunu borom nee na Serigne Touba nee na li ma bëgg suñu borom saa yu ma ko bëggee suñu borom dafa koy jox. ma ne ko bàyyil ma ñaan ko ngir ay teggin waaye am naa ko ba noppi lii aw salil ladi uridu an faay bi yàlla wara yaa muxniyan an mit faay lu ma bëgg mu agsi te bu ma bëggee jariñ bindee fi man naa leen a jariñ kon yàlla dee ma jox yàlla ne ko dama lay jox moo tax bi mu bëggee suufu si Xelkom Abdou Diouf jël jël pëstéefam la Sëriñ Tuubaa dogale Abdou Diouf mu jox ko ni ko bëggee waaye lu jafe la ndax foo na classé la allemand yi ñoo ko bokk ak seen ak français yi Abdou bi mu koy signé France la ko signé Paris banque mondiale président banque mondiale moo dendeeg moom nii te ko kàddu gi mu jël bu Abdou Diouf doonoon yaafus du ko du ko signé ndax dane ko bis boo signé suufus xel kom di ko jox kenn ñun waa banque mondiale dootuñ la joxati benn dërëm Abdou Diouf bi muy jël kàddu dane ko président banque mondiale li nga wax dégg naa ko da nga ne ba ma signé suuf si jox ko ki ma koy jox dootu leen ma joxo ci benn dërëm loolu sañ ngeen ko dërëm yi yéen ko moom waaye suufu Sénégal maay président bi daal ne àll leen ma kii bi ñu tag mu xaatim daal ne bis ni ki tey Serigne Saliou mooy borom suuf si sëriñ bi ba nga koy sant dane maa ngi sant Raïs Diouf Raïs juuf mi yàlla jaarale suufu si xel ko mu ñëw ci man bi mu ko bëggee bëgg na ko lu yàgg di ko topp bis ba muy dem ci sëriñ sëriñ Abdou Lahad Matar Jaxate moo ma wax ni ma dama ànd ak sëriñ Saaliwu dem ca Abdou Diouf astaghfirullah ci sëriñ Abdou Lahad mu ne ko dama bëgg suuf si xel ko Matar Jaxate nee na sëriñ Abdou Lahad ne ko ah bëgg nga lu jafe ndax man de ba ma ko bëggee lañ ma ca jox gis nga ko muy bokki barga Daaru Salaam bokki barga moom lañ ma ci jox daaru salaam mbokki barga ak daaray 14 ji ma nekkoon ñoo dendee daaraalul xabiir foofee la sëñ Xalil waxoon ala mil ila daaril alimi xabirina isaarumta min di samaani najaata soo bëggee mucc ci muccuk jamono demal fa ñu wooyee daaru alimul xabir nga ne fa fa lañ mu ne ko foofa lañ ma jox sëriñ Sall na dënd moom yàgg mu ne ko yaay sëriñ Touba boo ne ma na ko am da ko am sëriñ Blanc ne ko dañ ko am mu daal ne bërët dem moo tax bi mu toogee moom lañ ko njëkk a jox mu daal koy exploité ci weer yu gàtt mu woo nit ñi xel koom xoolal Serigne Saliou xam-xam bu rëy bi mu ne yéen waa Ndakaaroo su ngeen ñëwee na ngeen yem ci togg yu joxe ndax mënu leen a gor te bàyyee waa sow waa penku bi ñuy gor waaye ndax yéen mënu leen a gor ndax yàgg ngeen ci mu ne fa di yare xanaa xamoo ne sëñ Seydou xel koom bii a taallumiya la environnement jàng la boo fa nekkee ni ngay jeexitaloo ci Serigne Saliou loolu doy waar la ndax dafa bëgg njàng sëñ bi dafa bëgg jàng dafa bëgg xam-xam te mu mu rabbil ajyaal boobu ñuy wax ne mooy tërbiyee génération bi loolu moo wér ndax bi muy woote xel koom ni nga xam ne ni la Serigne Saliou xel Xelkom loolu ku ko dégg xam ne lu doy waar la def na ilaa tawaali fii yaquudullaahu asraara laa ilaha illa allaahu xam nga Serigne Touba dane sama taalifi yi secret yi laa ilaha illallah yëpp ci la ne daal ne xafis suma siina anit dafatiri fala takkoon an xidmati bi fatiri da nga waxe Serigne Touba jooju Serigne Touba dana lu couverture di wër sëriñ Tuubaa waxul ay téere de daftar ku fi tiir lay tekki liy wër nii téere sëriñ Tuubaa nee lu koy wër rek mokkal naa ko ba mokkal leneen lu dul loolu kon nag yow mi may liggéeyal bul tayal ci di ma liggéeyal sëriñ Sall daal ne mayit maa ngi woote loolu ci sama daara yi yaa ma sañ ci xel kom mu ne mayit maa ngi woote loolu ci sama daara yi ma sañ ci xel kom daal na jox leen ma ndaw ñi dëgg de ma def ci ñoom la Sëriñ Tubaa daan def ci mag ñi donte yellowuma ko ma barkeeloo ko waaw maa ngi ñëw waaw jël leen yóbbu ak ñi nga xam ne seeni xel daa nëx ak ñi nga xam seeni xel daa nëx déglu ma wax la ñi nga xam ne seeni xel daa nëx ndax dane jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la sëriñ tubaa daan def ca mag ña mas ngaa dégg loolu doon te yéen lawu ma ko ma barkeeloo ko man dama lay wax kay man dane ma ndax xam nga kuñ ma tuddee ma ne ko ah déet loolu mu xoogu dama am dafa am lu ma ci wax te loolu laa xamee li mu bëgg a wax man ndax kam ma tudd du du ndaw ne ma ndax xam nga kuñ ma tuddee galas ma ne ko déedéet màggalu 2004 la màggal gi des ñetti fan ma jógee njurul ñëw seet ci ko fekk ko mu yor alxuraaniyatu yor surnaale arab yu bari ma jub ko mu ne xaadim cuun mu seex Béthio galas jotare mais di ñëw jëlal surnaale yi nga jox ko dana xam nu mu koy def boom ma toog ci wetam mu jël xuraani bi teg ko ci ginnaaw ne ma ndax xam nga kuñ ma tuddee ma ne ko ah xaw ma ko de mu ne mii xamoo ko ma ne ko déedéet ma ne ko ndax du yonent yàlla saaliwu mu ne ma defe nga koom te defee nga ko sëriñ saaliwu mooy weddi waaye kooku teggin yi mu rëy boo déggee sëriñ tubaa naan addabani rabbi fa ahsana bi ni ma yàlla yaree moo rafet te sëriñ tubaa naa ak sama tërbiye kuñ ko tërbiye faw nga yaru ndax dañ maa dugal fu nekk wala xaytu fi tilka al jazirati wa fi tilka al muddati maa laa askuruhu abadan taadduban maa xayri maskurin li wajihu bina wa zalika tarbiyatu al hayy allazi laa yamuut neen dañ ma yóbbu ci benn île boo xam ne mu île Mayomba ak Lambarana sëñ Touba nee na daj naa fa loo xam duma ko tudd mukk ngir ay teggin ngir sant sa dal ne loolu la yàlla tërbiya cay sëñ Tuubaa tërbiyaam ngay gis da nga de sëriñ Sall ma defe nga koom ma ne ko ah, am na ñu naan naqiyun taqiyun saalihun sëriñ Tuubaa bi muy wax ci sëriñ tubaab bi muy wax ci xasida gi ñuy wooyee muxaddimaatu lamta ba ne na naqiyun ku set la muttaqin ko ragal yàlla la daal ne saalix yonent bi ku baax la am na ñu ne foofu la sëñ bi tibb waaye waxuma ci dara dama ne ma xaaral ma wax la ci li ma la ci mën a wax def déglu leen de xaaral ma wax la ci li ma la ci mën a wax ak li ci am bokkul de ma ne ko waaw mu ne ma bi ma si feeñee ci njaareem xam nga lu sëriñ bi def ma ne ko ah déet loolu mu xamu mu ne ma dafa jël këyit lu weex tal xam nga lu mu ci bind ma ne ma déedéet mu ne ma kaay nii ma wax la ko jël quraan yi bi teg ci ginnaaw ne ma xoolal bind alif na ma lii lan la ma ne ko alif ci tab bi la koy bind na ma lii lan la ma ne ko laam mu bind saat na ma lii lan la ma ne ko saat mu bind alif na ma lii lan la ma ne ko alif mu bind laam na ma lii ma wicc ko ne ma xam nga li ci kiimaan ma ne ko déedéet mu ne ma sëñ bi ci kaw la ko maas njëkk sëñ bi saale ha la tudd man maa leen ko wax kay moom ma ko wax de ndeke ndeke jërëjëf sëñ Saliou wahab li al ilma saxiixa wal amal asaalih alladi xoolal sëñ bi dafa attiré attention mbooloo mi dane wahab li nag ma may fifty fifty sa sëriñ sëñ Tuubaa bi mu bëggee yaakaaram yaakaaram mottaliku sëriñ Saliou mii la indi moo ko wax di te xasida gi nga ko wax muy nooru daaree nii mi ngi ko bindee njaareem te boobu sëñ bi lay préparé ne wahab li al ilma saxiixa wal amal assaaliha allazi mi nga xam ne yu kammilu dana mottali al amala yaakaar ja gars yi da ngeen ñoom mébét yaakaar la wax yaakaar ji ma yaakaar a defal yàlla ci kaw suuf Serigne Saliou moo koy mottali assaaliha allazi yu kammilu amal benn bis bi ñu bi ñuy waxtaan bi waxtaan bi continuer mu won ma wasalati dunia liyal masaliha wa bil masaali uhaynu saaliha sëñ bi ne ma haazal baytu sarixtuhu wa malaktuhu li nafsi phrase boobu sëñ Saliou moo ko làkk ba mu ko làkkee laa ko mokkal ba tey fàttiwu dana ma dana ma béyu di sàcc naa ko moo wale ko sama bopp haazal baytu sarixtuhu wa malaktuhu li nafsi béyu di naa ko moo wale ko sama bopp ndax sëñ Tuubaa dane yow yàlla sa àdduna ji li baax lépp jox la na ko jox na ma te li baax la ci laay dimbalee Saliou sëñ bi nag bëgg maa woon ne maa moom tax mu ne ma haazal baytu sarixtuhu wa malaktuhu li nafsi bayt yi sàcc naa ko moom ma ne ko sama bopp ma ne ko tajammahatil masaalihu kullan indakum loolu maa ko làkk ma ne ko luy baax lépp a ngi daje ci yow mu ma alhamdulilahi rabbil alamin ma ne ko sëñ bi li mu bëgg a wax mooy lii dafa am benn bis ñu toog ci wetam mu jékki-jékki am kuy jàng way sëñ bay jaxate ba sëñ bay jaxate fi muy waxee naan nit naan sëñ tubaa nekk nit dana ko dana gis nit mu soof ko lool te du ko ko woon dana jëflanteeg ba mel ni kooku la gën a sopp waaye nit ki dana am ci mel sëñ bi noo xam ne sëñ bi du ko bëgg a gis waaye faaw mu jëflanteeg moom sëñ bi wàccee bom bi ba mu tolloog sëñ sal si mu ne xawma lu ma niru waaye loolu bokku ci nee na xamut lu niru sëñ tubaa waaye loolu bokku ci ne loolu niru naa ko lool moom salaaw leen nit jub moom sox ma lool waaye daal sopp ma loolu waaye danaa fexe rek ba nga xam daanaka du ma mën a kii sëñ Saliou daa am bés cant gi sëñ Moussa Moussa Ndiaye mu cant ci kanamam dañoo san cant ba bët set booba kenn xëy seegul muy tàngal warga fifty ci Serigne Sall laa gisee woon kawas yoo xam ne gisatuma ko ba léegi kawas yu am batterie batterie sell yu mag yooyu mooy batterie yooyu nga xam ne mooy segg bi kawas gi da koy am ndax sedd bi su ko day day day toog bi ak mu xëcc ko nga dégg mun a taf kooku sas sang jooyloo na murit Serigne Saliou mu ne bëri ba taxaw ba ne nii ba boole dara yi ñëpp na bër bër mu ne yii bu ngeen defee ndànk naa xool fi may jaar ba jàll man de muy tàngal war ba war nga ba noppi ba ci kanam ba ci kanam mu ne nii nii lay def ku ci xam nii mooy yëre ataay yi day bind ci jaww sëriñ Sall ñu mu yar dem na ba sax ku mu bindal ci jaw ji nga dem day jékki-jékki ne nii nga ne nga xool ko mu ne nii ke ci gënoon a foor nag mooy sëriñ Saliou si rahmatullahi alayhi su ko masaane ci jaww ji sëñ bi bu lay bindal ci buy bind ko far sëñ bi dafa am benn bis mu toog bëgg a jàng alxuraan sëñ Sylla bëgg a jàng alxuraan am ku ne der yëkkati yëkkati jàngul de mu ne der yëkkati xasaayit mu daal ni man hmm, hmm, nu may def tey yow bëgg na maa jàng te it salaaw mu maa mënu ma ko boole xasida yi mënu maa ñàkk a teewul xasida yi mënu maa jàng alxuraan nu may def daal ni saaliwu mu ne ko mbàkke mu ne ko waaw defe ne boo mënoon fexe ba wax ak moom ba du ma ci doon dara de ndax ñetti fan a ngi yow jànguma alxuraan li mu ko daa mel yàlla day def saa yu muy bëgg a tàmbali rek ci lay daaj mun na xamul lu mu Baye Sall dem na ko xam naa boo mënoon a fexe ba bàyyi ba fukki waxtu ci guddi nga doo ko daaj 10 heures ci guddi nga doog a daaj booba waa si dana am jot mën laa déglu loolu lay gën mu ne ko déet bàyyi Sall fekk sëñ beeg moom mu ne ko déet sëñ bi waxul dara man maa ko ba mu mu ne ko Saliou daa ni bàyyi na de. mu ne ko waa bàyyi nag mu ne ko waa bi muy bàyyi loo ko wax mu ne ko waa moom la dama ne ko daal boo mënoon bàyyi bu fukki waxtu nga doog a tàmbali dana fekk sëñ man koo kii mu a kii boobaa dinaa ko déglu baax a baax a baax ne Saliou xanaa xamoon ne ku du jàng alxuraan boo dajee ak sa borom bu la ko laajee doo xam loo koy wax te à ta distance defar nit ata ta distance moo ci gën a gaaw ku dul moom def ci sa xol nga bëgg ko doo ko gis sëriñ Saaliwoo ci gën a foor ku dul moom loolu ay dogal la yàllaa ko def ci moom sëriñ Saaliw bi ma woowee ma ñëw ba mi ngi tàngal warga mun na ma yow a giñ ngaa way jox ma xam nga dafa bëggoon poème arabe da ko bëggoon lool xam naa ne li li naari doon way sëriñ Touba di ko yët sëriñ Touba loola yàlla dogal ko ci moom mu am ñu ko mën a defal loolu da ko doon barkeeloo yàlla defa def na ci jamono yooya yàlla suturaal ma ci moom bokkoon na ci ñim gënoon a ràññee na man bokk naa ci ñi ko dàq mu ne na ngaa gëj way jox ma ma daal dem ba ne na sëñ laaj jaxate al ma këyit mu al ak big mu yoroon laaj jaxate ku ko xam foo ko fekk mi ngi bébaru ay këyit nii ak big ku xam laaj jaxate da ko fay ba fu mu dem ba ko fa ma def ñeenti bayit wallahi ansi ni mu doon noo sëriñ Touba arfin bi arfin laa lay lax de ñeenti bayit laa def ñëw wan ko ko mu ne ma lii kañ kañ mu ma ne ko bi nga waxee loolu de léegi laa ko def fàtte naa ko dafa yàgg waaye ñeent la waaye lu wér la nag xasida gi ma ko njëkk a way mi ngi tàmbali li man talalul ko xattin fi saboori maha ayaatihi xidamul usuli wama nabtun nadirun kaana fiihi wama sawtun ada sawti tuyuri yujaari fiihi awaalun wa tara nabatan yaabisan xayra albariri wa saddat anhu indaatun wa layla wa xidman kaana masbahat albairi wa taskarata sukaara ajmaina walakin zaara mawan li suquuri mooy xasida gi ma njëkk a way Sëriñ Saliou way naa ko xasida mu ne gone yi li ma jaaxal dañuy làkki tubaab benn bayit boo xam ne ma ne asalta saxaani an xulóobin li xawmikum asalta mi jismihi max malaria malaria mooy sibur ci tubaab dama ne ko mbañeel ngay dindi ci xol ba nit ki dootul bañ kenn daal ne ko ràmm yi woon suñu yaram yi dindi nga ko ba sibur sax dootuñu dal sëñ bi ne sëriñ abi laa wax ne gone yi daa mel bi loxol français moo gën a dégg arab ci yi daa mel dañuy dañuy làkk français sërif ne ko ali hasan ajib sërif abi wala mu daan àndal mu ne ma monte sëriñ bi laajee woon na nit nii ma la laajee barke sëriñ Tuubaa nga def nii mu defee lam ko ca mayoon may naa la ko leen xaadatul ujuur wal masaalihu bi tey wal jës bi wa inni saalihu sëriñ mut si nee na ma xasida gi ñu waa màngaan yi jàng nañ ko fi léegi xasida gi boo gisee waa màngaan dañ ko jàng Cheikh Béthio lañ mës a ñëw ne ko xasida gi lil xaaritil ujóoru mi ngi nii mu ne kon da mooy sama xasida ak bopp ndax as xasida yi li muy yaatu yaatu lin xaaritil ujóoru képp laa ci xam mu jàngloo ko ñee bañ mokkal ko mooy jàng jàng fi léegi mut si moo ma wax ne ma damaa nekk di ko damaa nekk di xaar seex bi ndax sëñ bi damaa booleek moom lu ñu war a liggéey sëñ Modou si ca xel comme la nekkoon waaw nee na ma dugg ci biir ñu fekk sëñ bi jàng xasida gi mu seex bi bayit woowu ngay wax ci man de moo nga fekk ba toll ci seex bi muy leen xaadatil mu jóoru ujóoru ma masaaliwu bi tay yi wal jës bi wa inni saaliwu xam nga loolu lu muy tekki sëriñ Touba nee na pay ak li baax taxa ñu nañ jëm ci man te ba muy def loola boobu lay saaliwu moo tax ku ko neex lay jariñ ku ko neex lay jariñ damay wàcc sama kàddu yàgg naa laa gis ci vidéo yi ngay waxtaane Serigne Saliou ma bëgg a xamante ak yow waaye dama doon natt Serigne Saliou sama bopp sama diggante yow ma ne ko looloo ma dàqal mu ne ma dama doon wax ni galas mi yàlla naa xamante moom waaye bu mu ko sàkku bu ma ko sàkku ñu invité ma DSS biisu mai moo ma fa invité may dem ndeke moo sponsor sponsorisé émission bi yónni fa awo mii nga xam ne jàmbaaram la di ku baax di nit ku tedd di koo xam ne naw naa ko ci jikko yu bari ku disponible la loolu moom dama la koy wax fifty ah une dame brave soxna awa moo mel ni moo la woo téléphone ne yaa ngi siifur nga ne ko maa ngi siifur nga ne ñu jox ngeen jox nga ñu million ci ci émission bi nañu da ngeen di ñëw ndogu si nga wooyee sëñ Saliou sàmm mii ñëw teew fii far yàlla ñu def ñu def fii ab diiwaan ak sëñ ak sëñ Mbàkke murit mële nga ñëw fii nga ma ko wax ne ma xamoon naa ne Serigne Sall danañu boole ba ci njabootu Serigne Saliou gi danga ne woon fii laay toog ñu fekk ma fi sëñ Mourtala fii la la fekk ku natt Serigne Saliou daj ko waaye fi nga koy natt baax na de ci gone yi Serigne Touba moo waxoon ni bunti aljanna yi juróom-ñett la waaye am na buñ dëxëñ nee na kuy taral gone moo fay dem daal ne man awma jot gi pour def ko ndax dañ maa téye. juróom-ñetti at indi ma résidence surveillée 15 ans ma doog a dem Touba kon mënuma ko waaye Saliou mii di daw dana ma ko defal kon su la yàlla ilhamee inq wala nga nekk ci gone yi di ci liggéey bay boo xam ne war ngaa sant yàlla bu baax yow ku Serigne Saliou dimbali nga yow ñeewoo ko demoon daara ah. dëgg laay wax de kon sëñ Mamoun ñi ngi nuyu Serigne Mountakha bu baax di nuyu soxna Bali jàmbaar ji ndax ñu ngi gis taxawaayam bu baax mbooleem taxawaayam lépp ñu ngi koy yëg te lépp dimbali Sëriñ Muntaxa rek la Sëriñ Saliou ñoo ngi ñoo